wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa moulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer wii ñu nekk muy weeru safar waaye di leen ndokkeel bu baax a baax ci bis bi ñu nekk muy bisu aljumaa di ñaanal suñu kilifa yi ci suñu kanam te ciy jiital alxalifatul am lil muridin muy cheikh ahmad cheikh mohammadul muntaqa mbakke di ko ñaanal suñu boroom yokk ko kàttan ak man-man ba mu sottal naa lii mu yéene sottal yépp ci yoon wi ak ci umma islaamiya bi yépp mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci seen émission bu bees boo xam ne dañ koo tuddee atub xidma fii rihaabil xidma émission bi di wundu lépp loo xam ne dafay jëm ci lu aju ci liggéeyu daayira bii di daayiratu muxaddamatul xidma waaye it di gën a jëm ci wàllum jàngat ak faram-fàcce bépp discours boo xam ne dafa juddoo ci biir jumaa ji wala mu juddoo ci kilifa yi nga xam ne ñooy yilif jumaa ji te ka ca jiitu di Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne émission la boo xam ne incha allah dañ koy am ajjuma ko jot bu xutba bi jàllee ñu jàngat ko wax li ko composé ak éléments yi mu am waaye firil ko ñi nga xam ne it Euh, dégguñ làkku arab waaye émission bi dana dox jëm ci bépp discours boo xam ne dafa jóge ci xilaafa gi walla mu soxal yoon wi insha allah bu dee xutba bi ñuy commencé mooy xutba bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mamoun Bousso jàlle tey muy ajjuma gi njëkk ci weeru safar comme ni ngeen ko xamee xutba dafa am lu muy wundu am lu muy firi waaye dafa war a am yu ko composé dafa war a am ay éléments bu ñu xoolee xutba tey bi nag dafay mel ni Cheikh Mouhamadul Mamoun da ko indi ci ñaari euh, juge yu bokkul ñaari thèmes yoo xam ne dafay mel ne dafa am ak woro waaye boo ko xoolee ba ca biir dafay jàppaloo thème bu ci ne dafay mel ni dafay complété moroomam te loolu dana leer ci bu ñu forom fàccee xutba bi xutba bu njëkk bi ci biir wax ji mën nañ cee dégg ne euh, li mu ñu bëgg fàttali mooy importance bi julli am moo tax ci njëlbeen gi Cheikh Mamadou Mamoun bi mu ñëwee dafa sant suñu boroom mi nga xam ne mooy almurshidil muin mooy gindee waaye mooy dimbalee suñ boroom mi nga xam ne mooy saytu mbir yi ay jaamoom moo yónni yonente yi suñ boroom moom la sant ndaa ci nag julli ci yonenteem boobu sallallahu alayhi wa sallam yonenteem boobu nga xam ne moom la yónni ci mukallaf yépp bi loolu jàllee mu indi ñaari seede yi te mooy seede ne daal amul benn buur buy dogal bu dul suñu boroom moom rekk moom moom ak nguur kenn bukk ko moom waaye seede na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la doonoon ndawam loo xam ne moom la yónni woon nga xam ne ëllëg yowmal qiyaam yowmal qiyaama képp kuy ràmb moom moo ca jiitu moo ca gën a màgg foofu lay waxe naan nashhadu an laa ilaha illa waxdahu la sharika la ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أجل الشفيع في المذنبين daal di julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ak i ñoñam muy ay mbokkam ak i saxaabaam mooy ñi bokkoon ak moom jamono taseeg moom te gëm ko ñooñu nga xam ne dañoo baaxoon laab ci bépp bàkkaar bi loolu jàllee Cheikh Mouhamadul Mamoun ñëw ci li tax a jug xutba bi te muy fàttali ponk yi nga xam ne ak cislaay yi nga xam ne eh, moo lal mooy laytaay lislaam cislaay yooyu tudd na ko ci loo xam ne forom fàccee ko waaye dañ koy xam ndax yàgg nañ koo jàng te mooy ñaari sedd yi toftal ca julli ba nam jeexe koor aj màkka ak natt azaka eh, waaye nag mu fàttali ñu ne ponk yooyu bu ci ne taxawal ko ak euh, fexe ba muy am saa yu ne moo xam ci lu nëbb walla lu feeñ dafay nekk lu mënta ñàkk waaye ponk yooyu bi ci gën a màgg gannaaw bu nit duggee ci lislaam te mooy gannaaw bu mu seedee ñaari sedd yi mooy julli juróom looloo tax suñu boroom daat koy waral ci ñun ci ñu koy taxawal ci ay waxtoom leeral ko ba mu leer naññiit wax ko ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw wax ko ci sunna gaa yu baax yi soññee ci ba ci suñu kilifa gi muy cheikhul xadim radiallahu anhu foofu la cheikh Muhammadul Maamun di waxe naan amma baadu fa yaa ayuha inna allaha subhanahu jacala lil islaami qawaacida wa arkaana wa amarana bi iqaamatiha sirran wa iclaana wa jaala acdamaha bacda shahadatayni salawaati alxams wa xattama calayna iqaamataha fi awqaatiha allati bayyanaha lana bila labs julli googu nag nga xam ni moo gën a màgg ci ponk yi gannaaw bu nit ki duggee ci lislaam te mooy gannaaw bu mu seedee ñaari seede yi julli yooyu importance bi mu am mi ngi feeñe ci ne jaamu yàlla yépp moo ci gën waaye jëf yi nga xam ne mooy tax nit ki jege suñu borom yépp moo ci gën a màgg moo ci gën a gaaw te loolu li koy firndeel mooy li Seydina Omar waxoon ne seen mbir yépp bi ci ëpp solo ëpp ci importance ci man mooy julli kon ku sàmmanteeg julli ku sàmm julli sàmmanteeg moom di ko def ci waxtoom na xam ne sàmm na diineem waaye ku ko sànk it na xam ne sànk la neen dana ko yomb daan ne suñ maamoon teg ci gannaaw bu bu mu waxee importance bi julli am wax ne mënuñ koo ñàkk taxawal waaye daf jaar teg ne kon ku sànk julli doo ko def mukk na xam ne mi ngi def bàkkaar mi ngi toggoo bàkkaar yu boo xam ne dafay bokk ci bàkkaar yi gën a mag ndax suñ borom moo waxoon ci alxuraan ne na ngeen di sàmmante ak julli di ko def ci waxtoom xaafizu ala salawaati wa salaati alwusta wa quumu lillahi qaanitiin kon ci gàttal mën nañoo wax ni daal xutba bu njëkk bi ci loolu la jëm muy fàttali importance bu julli am ak markaz wala place bi mu am ci ponki lislaam yi yépp euh, keno yi lislaam jën yi nga xam ne ñoo ko téye te mooy juróomi jën yooyu julli importance bi mu ci am ak solo si si nga xam ne foofu la féete ci eh, ponk yooyu bu dee xutbab ñaareel bi moom dafay mel ni dafa ñëw di mot li xutba bu njëkk bi moom ci lim jëm rek mooy fàttali ñu jukkoy gaa baax yi fi jiitu woon jullit ñi fi jiitu woon te daan def lu baax seeni jukko waaye comme niñ ko xamee xutba moom bala nga tàmbali di wax dara da nga njëkk sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax foofu la Cheikh Mahamadul Maamoun tàmbalee daal di sant suñu borom mi nga xam ne tedd gën a mag gën a kawe moo ko amee suñu borom mi nga xam ne mooy xéewale ay jaamam xéewal ga gën a mat nga xam ne ñëpp ci gis seen bopp waaye julli bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne ku ñu sant la waaye di ñaan tedd nga ak xéewal ni mu ko dalee mu dal ay ñooñam ak i saxaabaam ñooñu nga xam ne dañoo xamoon yàlla ba noppi it di jëf luy wane ne xam nañ suñu boroom foofu lay waxee naan di tàmbali xutba bi di wax naan alhamdulillahi alladi azuma karamu alhamdulillahi alladi azuma karamu wa ammatil ibaada niamu wa ala alihi wa asxaabihi dawil maarifati wa shuhud gannaaw bu lool jàllee mu tàmbali ci di tudd jukkoy gaa yu baax yooyu nga xam ne ñooy royteefu xeet wi waaye ñooy ballukaayu njub di ballukaayu leer ku bëgg ak leer ku bëgg a jaar ci yoon ku bëgg royteef ñi ñooy royteef yi te mooy asalafu saalix loolu la tax Cheikh Mouhamadul Mamoun wax ne gannaaw bu ma jullee gannaaw bu ma santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi leen di xamal yéen nit ñi ne ki nga xam ne suñu boroom borom tawféexal na ko mu am ak texe mooy ki xool di seetlu ba noppi di ci jële leçon di waaru mooy ki nga xam ne day seetantal ci li weesu woon te jàll innal muwaffaqa saida man nadara wa'tabar wa ta'ammala fi ma mada wa xabar daan ne mooy ki nga xam ne it day xool ñi nga xam ne dañ fay jiitu woon suñ boroom jële leen fi muy waaru ci seeni jëf wattaava bi ma masarii saalifiin ñooñu nga xam ne dañoo amoon ay jukko yu baax jukko yu mat jukko yu yiw te jukko yi bokk ca ba ca gën a fees mooy boole ñaar yi te mooy alxawfu war rajaa ragal yàlla lool ragal mettitu mbugalam waaye yaakaar ko lool am xemmemteef ci yërmandeem ak njëggalam ñooñu nga xam ne kon dañoo yaakaaroon yërmande yàlla waaye en même temps ñu ragal ko lool ñu ragal suñu ñoo ñu nga xam ne yi àdduna musta bari ba tax ñu waru ci waaye xéewal musta sax ba tax ñu nax seen bopp ñu ci seen bopp ñooñu nga xam ne yërmande yàlla it euh, musta ñàkk wala mustaraar ba tax ñu naagu ñoom daal dañoo meloon ne koo xam ne day am picc moo xam ne day jër ñaari laafam benn bu benn bi mu teg ko fii benn bi mu teg ko fee nga xam ne dafay mel ne seeni jukko ak seen melokaan lim doon wane mooy euh, benn xel mi ak benn xol bi day tegu ci yërmaane yàlla ak lii ko suñ borom di diggee waaye baneen xel mi ak baneen xol bi day jublu ci e, ragal mbugalum yàlla comme ni suñ borom ñoo ñooñu nga xam ne suñ borom rek lañ daan ragal waaye la la ne ca suñ borom ci ay xéewal rek lañ daan yaakaar loolu dañ ko daan def ngir lëkkale diggante ñaari yi nga xam ne suñ borom moo ko leeral ci alxuraanam ji te mooy alwaadu wal waa'id suñu boroom dafa digee ne ku def lu baax ma fay la waaye dafa tëkkoo ne ku defub safaan ma jëflanteeg yow ci sama coobare loolu wax na ko ci alxuraan lu baree bare waaye Cheikh Mamadou Mamoun indi ca aaya ba ca gën a fees wala aaya ba bokk ca aaya yi gën a fees te mooy aaya bi suñu borom di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko na xibaar sama jaam yi ne ku mën a jéggale la ku am yërmaane la waaye nanga leen wax ne sama mbugal lu metti la nabbih ibadiya anni ana alxafuru rahim wa anna adabi huwa aladabu lalim loolu moo taxoon gaa yu baax yi dañoo yaakaaroon yàlla lool yaakaar yërmaaneem lool waaye ragal mbugalam lool xamoon ne suñu boroom ku maandu la ba tax ñu xam ne kenn ku ci ne lu mu def rek loolu la lay fay du neenal ab jaamam kon daal euh, nit ñu baax ñii nga xam ne ñoo fi jiitu woon jikko yooyu lañu amee woon mooy dañoo boole woon diggante ragal yàlla ak yaakaar ko ragal yàlla ci e, mbugal mi nga xam ne moom la tëkkoowee waaye tamit yaakaar ko ci yërmaanim ji nga xam ne moom la digge bi lépp jàllee suñu Cheikh Mamadou Mamoun daal di dëj xutba bi nag ci ñaan ñaan xéewal sax ñaan ak mucc sax ci mbugal mbugalum suñ borom waaye ñaan suñ borom yërëm yërëm jullit ñépp foofu lay waxe naan allahumma adim alayna nicmataka wa minnatak wa ajirna min adabika almuhin bi fadlika wa karamika waghfir lana wa li jamiici almuslim wa li jamiici almuslimin yaghfiru llahu lana wa lakum wa li saairi almuslimin di ñaan gu mat sëkk di ñaan gu jot sëkk ba kon loolu mooy xutba bi kon gis ngeen ne xutba bu njëkk bi dafa jëm ci importance julli ak wàccuwaayam xutbam ñaareel bi jëm ci melow gaa yu baax ñi bu dee li ñuy jàngat ci xutba bi nag jàngat bi ci jiitu mooy ne ñaari xutba yi dañoo am ak dëppoo ak tanaasuq da cee am te loolu dañ koy sàrt ci ñaari xutba muy xutba bu jiitu ak bi mujj tanaasuq bi ci am nag mi ngi feeñ ci ne dafa boole diggante théorie ak pratique théorie bi mu ngi feeñ ci ne Cheikh Mamadou ci xutba bu njëkk bi daf soññ ci ñuy taxawal ponk lislaam yi bi ci solo gannaaw ñaari seede yi mooy julli waaye bu dee pratique bi mi ngi feeñ ci dafa ñëw jëmmal nag euh, ponk yooyu nuñ koy fësale ak nuñ koy feeñale mooy amul lu ci jiitu roy gaa yu baax yi xool seeni jëf ak ni ñu daan jaamoo yàlla ndax seenug jaamu yàlla comme ni ko Cheikh Mamadou Mamoun la ci ñaareelu xutba bi dafa feeñoon ci ñoom dañoo dëppale woon diggante ñaar yi mooy dañoo boole woon yaakaar yërmande yàlla ak ragal am mbugalam loolu nag ni muy amee mooy sax ci ay ndigal di bàyyi ay tere te ndigal yooyu ba ci jiitu mooy di taxawal ponk lislaam yi te loola comme ni ñu ko waxee sànq la ci gën a màgg gannaaw bu nit ci tuubee dugg ci lislaam mooy julli juróom Cheikh Modou leeral na it yërmaane ak mucc ak texe ci àdduna ak àllaaxira mi ngi e, mi ngi amee ci di topp ndigal topp ndigal yi nag ba ca jiitu mooy taxawal ponk yi te ponk yi ba ca gën a màgg gannaaw bu nit ki duggee ci lislaam mooy muy taxawal julli beneen jàngat bi mooy li ñuy seetlu ci xutba bi muy ñaari yi xutba yi composé xutba bu àjjuma gi yépp li ñu ciy seetlu mooy éléments yi mënta ñàkk ci xutba am na ci élément yi ci mënta ñàkk te mooy sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak it tànn benn mawdu tànn benn sujet di ci waxtaan soññee ci ndax dañuy bañ ci benn xutba nga tànn ci ay sujet yu bokkut yu bari ndax loolu day jax jaxal ki nga xam ne moo koy dégg te loolu incha allah danañ ci dikkaat ci suñu beneen émission wax xutba ak la koy composé ak lañ ca sart ak yooyu yëpp euh, li ñuy jàngat ci xutba bi it mooy ñi ko doon bind wala ki ko doon bind bàyyi na ci xel euh, liy tax ak waare gën a mën a dugg nit te mooy nga booleel ko théorie ak pratique waaye it bokk na ci li ñuy jàngat ci xutba bi mooy ki ko doon ilqa ki ko doon joxe. Euh, sàmmante naag ñi nga xam ne ñoom la ko doon jox moo tax ni mu ko doon joxe leer na yaakaar naa képp ku nekkoon ci biir jumaa ji wala nga nekk ci bitti di teewlu Cheikh Mamadou Mamoun da nga seetlu ne xutba bi joxe na ko ci anam gu leer naññ ku ko diglu it te xam dara ci arab danga nga dana mën a leer ci sa sa jëmm kon daal euh, dañuy ñaan Cheikh Mamadou dañuy ñaanal ñëpp dañuy ñaanal Cheikh Mamadou Mamoun suñu boroom gën koo tëbbu kàttan gën a leeral aw làmmiñam euh, gën ko fee yàggal gën koo wéral ba ñuy yàgga taataan ci xutba yi nga xam ne danañu ko indil ajuma gu jot waaye di dellu di ñaanal Cheikh mun Mountakha ak suñu kilifa yëpp di leen jox dig daje incha allah ba suñu beneen émission ëttub xidma ëttub xidma fi rihaabil xidma incha allah muy émission boo xam ne comme niñ leen ko waxee sànq dafay soxal lépp rek lu jëm ci jàngat xew-xew yi nga xam ne mooy am ci biir jumaa ji ak yi nga xam ne mooy am ci yoonu murid bi yëpp moo xam dafa aju ci wàllu ay xutba moo xam dafa aju ci wàllu ay discours moo xam dafa aju ci ay wàllu xew-xew yoo xam ne daal xidma war na cee indi gis-gisam war na cee mën a jàngat kon ñu jox leen eh, dig daje ba beneen numéro ci ëttub xidma incha allah ki leen ko doon jot li mooy Abdul Xaadir Bousso Alaaji Cheikh asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا